soutenir non à la troisième mandat. ñu génn. day bokk day bokk day kenn du ko teree bokk day bokk. Sonko élection wala arna jiite ñu point amul leneen. taxaw ñu nekk ci ginaaw xale yi jàppale leen sonn nañu sonn nañu lii dafa war a jeex. bu ñu jógee rek ñu ne xale yi rek ñoo jóg tey jii nii dox mënuma ko bu baax waaye damaa jóg pour jàppale xale yi jàppale Ousmane Sonko doomu jàmbur la. Macky Sall ba mu ba tey régime se résume en trois choses. Ah ah lu njëkk bi mooy. promesse non tenue. deuxième fait bi mooy dictature boo xam ne da ci boole arrogance. troisième chose bi mooy soxor méchanceté boo xam ne musul am ci histoire u Sénégal. États-Unis laa jógee cellule Georgia mooy euh, lu Atlanta. ñaari bi rek mooy Macky Sall du bokk Sonko day bokk wala élection du am Sénégal. lii doy na comme sondage li fi li fi gis nii doy na comme sondage. danañ jàppale seen mbokk yi nga xam ne dañ leen dañ leen tëj ci kaso bi te defuñu dara wax dëgg yàlla jeunesse bi ñoo mobiliser kenn diw leen te ay kaar kenn fabu leen kenn neexu leen leen